mooy solo si mu am ci wàllu ruux kon ci juróomi tomb yi tomb yi bëgg a taxaw taxaw bokk ci nafar xasida gi xasida gi mooy mawaahibu naafi fi madaahi shaafi loolu mooy turu xasida gi ki ko taalif moom la ñëpp xam mooy cheikhuna ahmadul xadim radiallahu taala anhu xasida gi fi mu jëm mawdon bi mooy ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wa ci la xasida gi jëm baxru bi ñu ko taalife mooy baxru rajaz rajaz ñu jàng xam nañ ne mooy mustafailun juróom benn yoon mustafailun juñu baamu juróom benn yoon ci wenn bayit wu ne ba xasee gi àgg loolu la ñuy tuddee rajaz mu am nag ay defin ay anam yu ciy def léeg-léeg ñu dagg ci benn xaaj mbaa ñaar mbaa sax ñu xaaj bayit yi dagg ko di indi genn wàll gi ci xasida gii nag di mawaahibu naafi' ah, mën nañu wax ne ab hamziya la hamziya maanaam araf yi nga xam ne ci la bay yi daanoo mooy xarful hamza arafu hamza bismil ilaahi yan mooluhaa i bila manaahi wala ntihaa i ba xasida gi jeex kon ab hamziya la mooy bay yëpp mi ngi daanoo ci arafu Hamza bu ko defee mu bay yu nekk da koy def ñeenti xaaj yoo xam bu ci nekk benn jusu lay doon ci mustafilun jusu boo xam dañ koy def ñuy wax tarfiil mooy dañ ci yokk benn sabab xafiif bu waroon doon mustafilun ñu ne mustafilatun bismil ilaahi mustafilatun yanmuuduhaa i mustafilatun bila manaahi mafailatun wala ntihaa i mafailatun ba mu jeex kon mustafilun yu yokk yuñ tarfiil ba xasida gi jeex noonu lañu ko def bu ko defee wax nañu ne nitu yàlla ku mag ku ñuy wax Cheikh Mouhamadul Yadaali yi moo masoon def xasida gu xaw a gu niroog moom gu mel nii ci waxin maanaam guñ tëggee nii daal sëriñ bi roy ko ci wax ne Cheikh Mouhamadul daal dafa mas romb ab sàmm bu yor jumtukaayu wayam neel xalam mbaa riiti mbaa lu mel noonu mbaa toxoro wala yu demee noonu di way way yu neex di ko daaj daaj bu neex ci way nii rek way neexantal mu dégg wax ja mu neex ci moom mu ne ah lii day yonent bi sallallahu alayhi moo ko yeyoo ca daaju sàmm boobee mu tëgg ci ak muy salaatu rabbi maa salaami ala alxabibi xayril anaami nga ne loolu moom moo xam ñoo niroo salaatu rabbi mustafilatun maa salaami mustafilatun ala alxabibi mustafilatun xalil anami mooy itam mustafilat nga xam ko ab xasida miimi yàlla wante xasida ak Cheikh Mouhamadou daal yi ñeent fukki bayit mbaa lu tegal tuuti ca lay tollu waaye sëriñ moom ci xasidaam gii andi na ci lu mat téeméeri bayit ak juróom-benn fukk ak juróom-benn kon moo ëppale Cheikh Mouhamadou dal ci ay ay ay ay bayit euh, kon loolu la wax ci njëlbéenu xasida gi ci baxru bi ak li aju ci baxru bi euh, mu doon loo xam ne ci niñ ko wayee arab yi baaxoowuñu woon daan waye noonu ndax way woo xam ne bayit wi nii lay mel benn jus lay doon nga di ko takraar lu ma ñeenti yoon door a def luy niroog aw bayit door indi rawiyu bi daawuñu waaye noonu kon loolu ibdaa la mooy fent bu bees la boo xam Cheikh Mamadou daal mu ngi ko jële ci sàmm ba mu déggoon muy way rek mu jël daaju way wa daldi cay sadd aw bayit tabax ci defar ci xasida bu mu àgg mawaahibu naafi' sëriñ baa ngi ko taalif mi ngi ko taalife ceyeen jolof cheikh mouhamadul amin moom cheikh cheikhul xadim radiyallahu anhu ma wax na ci téeréem bi ñuy wax dalilul xaa'ir nee na sëriñ bu mag bi jës bu ak mawaahibu naafi' ak muqaddamatul amdaax ak jaalibatul maraaxibi bi neena ñeenti téere yi sëriñ baa ngi ko taalife ci jolof te nee na fekke na ko ndax ca ña nekkoon ci la bokkoon kon bu ñu jox jooju dañuy wax ne kon mawaahibu naafi sëriñ baa ngi ko taalife e, ci jolof e, moom ak muqaddamaat ak jës bu ak jaalibatul maraaxi bi waaye mën naa doon taalifuk yeesal mën naa doon taalifuk yeesal buñ sukkandikoo ci wax sëriñ Moussa Ka ca jasaaw shakur moom daa mel ni ku bëgg a wax ne jës bu mooxe bu naa fi sëñ baa ngi ca géej ga ma nga naan ba mu bindee solli banaaw sallim njool màkk tontul ko alal mukallim jibril tegtal ko dóor yaasim bur yàlla tàmpeel ko jumaa yi boppam da tabax yaari jumaa ci réew ma te nga dellu yee salaati kéew ma da tabax jumaa ju réy fa jurbel kenn du ko buddi kenn du julli normal kon day mel ni ko taalifoon ci géej ga yee ko ba mu demee te lu mel noonu moo am ci jës bul xulóob xam na ne jës bul xulóob moom bu njëkk ba sëriñ baa ngi Touba ci atum junni ak ñetti téeméer fukk euh, ama ay sachin ci Touba gii euh, ci la ko njëkk a taalife kon da ko yasaar kon ci ceen jolof jaay betul maraaxi bu njëkk ba it xam na ni ci géej gi la ko taalife woon kon da ko yeesalaat ci ceen jolof kon mën nañoo jàpp loolu euh, bu ko defee nag dem gëstu ji ba tey kon mën nañoo tënk loolu rek ci tomb bu jëkk bi ci xamlek xasida gi xasida gi nag ñëpp nangu nañu ne Cheikhul Xadim radiyallahu moo ko taalif ndax kenn mësta wax leneen lu dul loolu kon askan gi ko askan ci sëriñ bi lu wér la lu am tawaatur la ah, loo xam ne moom ci boppam daana ko bind lu di ko jàngulu ci teewam di ko askan ci boppam ñu koy waaw kon loolu wér na bu ñëwee ci xaajub ñaareel bi tombub ñaareel bi ci waxtaan yi mooy ni sëriñ bi tërale xasida gi tërale liinu nu xasida gi ah, dafa am ab muqaddima maanaam liñ baaxoo wax tarjumaan tarjumaanu wesar la am boo xam ne di ca da ko ubbee julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax yàlla basmala teg ci salaatul fatih teg ci ay ñaan ci muqaddama ci ci muqaddimab wesar bi doora and na way bon muqaddima bay boo xam ne ko ubbee tudd yàlla teg ci sant yàlla ak teg ci sant yàlla daal cay door a dugg nag ci ay ñaan ñaan ñaan yu bare baree baree bari daa door a tëj muqaddima way bi muqaddima way bi mi ngi tàmbalee ci bismil ilaahi yan mooluhaa yi bila manaahi wala intihaayi hamdali rabbi xayri murabbi qadra maqalbi bil xidaay lahu shukuri bila kufuri wa nasiri minhu fidaay lahu iqtirabi bila iqtirabi lahu xitaabi ma atidaay laka ridaai laka sanaai laka iltijaai ma atidaay kon loolu tudd yàlla la ak sant ko mu doog a dugg nag ci ñaan yi yaa man shafaani yaa man xamaani amman jafaani bi max widaay asbil sutuur yi aslix umuur yi kassir xuyóor yi bilaa kidaay nag ci ñaan ya baagi ci habli istiqaama qinil malaama hablil karaama bisilliwaay foofu la muqaddima way bi wala tarjumaani way ji yam di tudd yàlla ak sant ko ak ñaan door a dugg nag ci li ko tax a jóg dëgg dëgg dëgg muy tagg yonent bi sallallahu alayhi wa mu tàmbale ci bisil liwaayi bisil jamaali bisil kamaali bisil maali bisil dawaayi bisil ibaada bisil ifaada bi xarqi aada lil awliyaa loolu daal nekk tàmb lépp faslu bu njëkk dañuy jàpp ne xasida gi ci boppam ci bu dee li ko tax a jóg dëgg dëgg muy tàgg yonent bi sa alayhi wasallam ñetti xaaj la ñetti ñetti faslu la ko def ñetti faslu faslu bu njëkk bi mu ngi tàmbale ci xab istiqaama jooju bisilliwaay ba yegg ci yaa xayra waaxi yaa xayra raaxi yaa xayra daa'i li samaa'i salla alayka bi man ladayka musnin alayka inda rimaa'i alayka sallam da'ban wa karram man bika azam ahla timaa'i kon foofu la fas bu njëkk bi am danañ wax lu tax ñu jàpp ne diggante boobu a faslu la lu tax ñu wax ko dañ ko wax ci kanam incha allah faslum ñaareel bi tàmbalee ci bi ka aquudu bika ufiidu yaa man yasuudu zawi istifaayi zawi aquuli nahja rasuuli maahil gufuuli maahil xafaayi zawi zakaayi lizil bahaayi maahil xataayi maahil jafaayi ba yegg ci lahul buruuru lahul suruuru talqaahu xuuru baadal qadaayi diggante boobu ab faslu lañ ko jàppee li tax ñu wax ne jàpp ne faslu la dañ ko wax ci kanam incha allah faslu ñetteel bi mooy tàmbale ci laka xawaariq euh, loo xitaabi baada mataabi min kulli aabi maa almadaa'i laka xawaariq min zil xalaaiq laysat li saabiq wala li jaay ba yegg ci euh, euh, alayhi sallam ba yegg ci uh, akrim bi aali xaami iyaali raaci bi jaa xisn saani ma asum uh, lahum tidaa alayhi sallam uh, alayhi salla rabbun ajalla fa faaxa kulla fi latqiyaay alayhi sallam walam rafaxam wala jara azam fi laskiyaay foofu la faslub ñetteel bi yam ci tàgg wi li tax ñu jàppee ko faslu danañ ko wax ci kanam mu àggalee nag tagg yi ci tagg saxaaba yi tàmbaleeg ci xulafaa rashidun teg ci saxaaba yépp jagleel ahlu badrin seen taggu bopp jeexal ko jeexal tagg yi nag euh, ci euh, ci ci fa mu tàmbalee la jiitu inni aqulu daal tëji xasida gi nag ab xaatima bob way ni mu ko ubbee woon xaati ci ab muqaddima bob way mi ngi tàmbalee ci inni aqulu inni aqulu wala yamiilu lii ma yesul ma bila bi lii ma yesul ma jiraay lii ma yesulu yaasal jalaali yaa mu taali yaa xawee aji duwaay ba xasida gi jeex mu àggale ko ay way moom xaatima bi tegaat ci beneen xaatima bu wesar boo xam ne nam ko ubbee woon ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi ak ñaan noonu la ko tëjaatee ci bi sallallahu alayhi ak ay kon nii la ko sëñ teel bi mooy li xasiida gi ëmb ci ay maanaa yu feeñ yoo xam ne kuy jàng xam-xam rekk mën na koo xam mën nañu wax ne ñett mën nañ ko da wax ne am na lu ñuy wax al muxtawal maanaam loo xam ne euh, maanaam yi gën a matale te mooy ni ñetti yëf daal moo ne ci xasida gi ñetti ñetti ñetti maanaa yu mag mooy tagg yonent bi sallallahu alayhi moo ci ëpp ak ñaan ak sant tagg ak ñaan ak sant loolu la xasida gi ëmb cant gi leer na moo ci jiitu wajalha min ahabi shukri ilayka wa ilayhi alayhi salaatu wassalaam mi ngi ñaan yàlla xasida gi yàlla def ko mu nag cant ga yàlla gën a bëgg yonent bi gën ko bëgg sallallahu alayhi wa sallam euh, kon ci biir xasida gi xamee xamle na ci ne daa jubloo sant yàlla sant yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci li ñu ko baaxe ci ay xéewal yu feeñ ak yu nëbbu yu àdduna ak yu àllaaxira yu jagoo ak yu matale mu tàmbalee it ci cant googu cant googu yox ne ci turu yàlla la ay xéewalam di yokkoo te du am fu mu yam te itam du ànd ak lenn lu naqar yàlla bismillaahi yan moolu haa yi bila manaahi wala ntihaayi Euh, cant gi bari lool ci biir xasida gi ndax xéewal yi muy tudd yëpp ne sun borom defal na ko ko tudd ga waxtaane wa amma bi ni'mati rabbika fa xaddis wax tudd ga mu koy tudd di ko waxtaane sant sunu boroom la ci jublu xéewal ya muy wax it ak ngëneel ya muy wax ne yonent bi defal na ko yàlla defal na ko ci daraja yonent bi sallallahu ci biir tagg yi yooyu yëpp itam moom it da caa jublu sant yonent bi sallallahu alayhi wa ci uh, baax gi ko yàlla ci lim ko defal ci li ko yàlla defal ci barkeem ndax xéwal yi muy wax ci yàlla ci biir ñaan yi la koy dugal xéwal yi muy sant yàlla ci biir ñaan yi la ko dugal cant gi muy sant yonent bi sallallahu alayhi ci biir tagg yi la koy dugal kon sant ma lu maanaa la mu leer nañ te fés te yaatu ci biir xasiid ak mawaahibu naafi bu dee ñaan moom it bari na ci ndax njëlbeenu xasida gi ak mujj ga lépp ay ñaan la la ko tàmbale ci yaaman safaani yaaman xamaani aman jafan bi ba ca habli istiqaama qinil malaama hablil karaama bisil liwaay lépp ay ñaan la waaye buñ seetloo ñaan yi dañuy xam ne du ñaani kuy sàkkoo am lu mu amutoon du ñaani kuy sàkkoo am lu mu amul woon ndax li muy ñaan lépp fekk na mu am ko ba noppi waaye ñaani kuy feeñal ak njaamam la ñaani ku bëgg a déyaaleeg boroomam la mooy li wax ne minhu duaau li ubudiyatinay izhaari faqrin wa tanaajin yaa uxay duuna tasabbubika lil ataai xawfa ittihaam xawfa ittihaami rabbika lil ataai li annahu yafalu maa yuridu duuna allazi yaxtaaruhu lmuridu ca masaliku jinaan nee na bokk na ciy teggiin teggiinu yàlla bu dee ñaan yàlla bum ko ñaan ngir bëgg a am la muy ñaan na koy ñaan ngir wane ne moom ku aajowoo yàlla la kuy jege-jege jëm ci moom ku koy toroxlul la koo xam ne day nangu ne xéewal yépp ci moom lay jóge muy ñaan ngir feeñal njaam googu ak di ñaan it ngir jubloo déeyaaleeg boroomam ndax déeyaaleeg sunu boroom teraanga ju réy la jaamu yàlla gu màgg la kon ñaan yi bari na ci biir xasida gi ci diggante boobu yépp ay ñaan la la ko tàmbalee ci yaasal jalaali yaa mutaali yaa xal ajur ba ca mujj xasida gi lépp ay ñaan la waaye kon ñaan yi du ñaan ku bëgg a am la muy wax waaye ku ko am ba noppi la di ko wax nag ngir toroxlu ak feeñalu njaam ak bànneexoo déyali déyali ak boroomam euh, kon loolu ñaan gi yaatu na ci biir Euh, xasida gi bu dee tagg yonent bi nag sallallahu alayhi wa moom moo tax xasida gi jóg tagg na ko nag ñetti xeeti taggiin yu bokkul ñetti xeeti taggiin yu bokkul yoo xam taggiin wu ci nekk dafa am fu mu ko tàmbulee am fu mu ko yamale dugg ci weneen xeetu taggiin dugg ci weneen xeetu taggiin moo tax ñun ñu jàpp ne xeetu tagin mu nekk ab faslu la ndax daa daa am nu mu koy tàmbalee am nu mu koy daaneele mu am lu mu wuuteeg la ca topp tagg na ko ci wax ngëneel yi ko yàlla defal moom sëriñ bi ci ànd gi mu ànd ak yonent bi jaant gi mu jaant yonent bi sallallahu alayhi def ko mu nekk wasilaam di ko liggéeyal tagg na ko ci di ko wax li mu amee ci dara jaam ak barkeem xam nga taggaate ay ay xeet la léeg-léeg ngay tagg nit tag tagg goo xam ne du rek yaa rafet yaa bari jàmm yaa neexire yaa mel noonu di wax ay meloom waaye taggi lum la defal nga di ko ko wax nga xam ne loo loo baax goo xam la goo gum jëflante ak yow kon dafa njëkk a tagg bi ci tag taggiinu di wax li lim séq ak yonent bi ci ay ngëneel yu mu ko defal loolu mi ngi tàmbalee ci euh, ma nga tàmbale ci ci bunt bu njëkk ba rek bi mu waxee xablis istiqaama bisil bisil jamaali bisil kamaali foofu la tàmbalee ba ca yaa xayra waayi bay doo ko jiitu diggante boobu yëpp tàgg yi fi tàgg yëpp day tudd ay ngëneel ak may ak i yu mu ame ci jàpp gim mu jàpp bi sallallahu alayhi wasallam def ko mu nekk wasiilaam euh, di ko liggéeyal moo tax ani jazaaka rabbun hadaaka fawqa munaaka yawmal jazaa'i jazaaka rabbi yaa xayra xibbi xayra muhabbi bilartizai yal na la yàlla fay lu kawe sa mébét sa borom bi la gin gi la xamal aw yoonam bisu fay ba yal na la fay lu ëpp la ngay séntu mu fay la ko yal na la ko fay ci man yal na la yàlla fay yow mi nga xam yaa gën ci ku ñuy sopp te yaa gën it cib soppe euh, euh, kon yàlla na la yàlla fay yàlla na la yàlla fay moom ku la defal dara lu sedd sab xol nga yéene koo fay te jàpp ne lottu nga ci defal ko lu mën a fay loola moom ngay ñaanal ne ko yàlla na ma la yàlla fayal foofu la ko tàmbalee nag di wax nag li nga xam ne euh, yàlla defal na ko ci barkeb yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo wax xoolee bayit yëpp boo ko doon jël benn par benn ci diggante bu xaaj bu njëkk boobu yëpp ay xéewal la ak i ngëneel yu muy wax ne yonent bi moo ko ko defal te yonent bi moo ko ko defal itam suñu borom moo ko defal ci kàttanu ci barkeb yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon loolu mooy xaaju tagg wu njëkk bi xaaju taggu ñaareel bi dafa tagg yonent bi ci ay jikkoom aki melom yu rafet ci ay jikkoom ak aki melom yu rafet loolu ma nga tàmbale ci euh, bi mu waxee ne euh, bi mu waxee ne bi ka aquudu bi ka ufiidu yaa man yasuudu zawi istifaa'i zawil aquuli rasuli maahil gufuuli maahil xafaayi dawi zakaayi lisil baay maahil xafaayi maahil jafaayi zaaka almutaacu zaaka alshujaacu bihi yuraacu dawul ibaayi zaaka alwaliyu zaaka alnajiyu zaaka alsafiyu zul itibaay ba àgg ci waxoon nafiisu falaa taqiisu wa huwa raisu lil anbiyaay shamsu shumuusi rasu ruusi xayrul aniisi lil awliyaay mushkin li shaakin bisrun li baakin musnan li haakim wasne ba yooyu yëpp ay melo la ak jikko yu rafet ay jikko yu tedd ak melo yu rafet yu yonent bi sa sa melowoo la ko tagge loolu weneen xeetu taggiin la loolu kon diggante bi mu ko def li ko tàmbalee ci bi ko aquudu ba ci lahul buróoru lahul surutal xaw maadal tàgg na ko ci wax ay manooreem ak i kiimaanam ak i kaawteefam ak li mu ëmb ci njariñ ci ku ànd ak moom mi ngi tàmbalee ci laka xawaariq min zil xalaaiq laysat li saabiq wala li jaay min han siraafu shay'un yuaafu amman yaxaafu baadal tijaayi xayral baraaya zuttal balaaya zil xataaya rumta na antal karimu anal xadimu daan fi ba àgg ca fa mu waxee kawteef yi di ko lim ba àggalee ko ci rañaan ma ba jeexal ko ci alayhi salla rabbun ajalla fa faaxa kulla fi kon ñetti xaaj yi di xaaj tag yu wuute xaaj bu ne mu am fu mu ko tàmbalee ak fu mu ko yamale ak nu mu koy tëjee ak nu mu koy tàmbalee loolu jàpp nañ ne kon eh, xasida gi ñetti bunt la ñetti xaaj la ñetti faslu la ñetti dog la ñetti dog la yoo xam ne dogi tagg la yoo xam ne benn tagg bokku ceeg wa ca des kon loolu eh, moom mooy li xasida gi ëmb ci ay ay ay ay ay tagg kon ci ci bu ñu xoolee ci maanaam mu ñu tënk dañu ne xasida gi làmboo na ay cant sant yàlla ak yonent bi solo sam sant gi muy sant yàlla da ko dugal ci biiri ñaan sant gi muy sant yonent da ko dugal ci biiri tagg làmboo na ay ñaan yoo xam ne jubloo am la mu ñaan taxul mu di ko ñaan waaye bëgg a deeyaale boroomam ak jubloo feeñal jegeñ jegeem loom ak njaamam ci digganteem moom la ca jublu xasida gi itam comme làmboon ay tagg eh, ci ay xeet yu wuute waaye am nay maanaa yu bari yu feeñ ci biir xasida gi ay maanaa yoo xam ne ci biir xasida gi bokk na ca xasida gi làmboo na di ñu xamal bi sëriñ bi bind xasiida gi fa mu tollu ci ak kawe ci luñ mën a xam rek xam nañ ne ngi ko bindee ci jolof ginnaaw bu mu jógee ci géej gi ba dem gànnaar ba jóge ba ñëw ci kon ku xam na ne boobee fépp fu mu bëggoon a àgg fekk na mu àgg fa lépp lu mu bëggoon a am fekk na mu am ko lépp nu mu bëggoon a mel fekk na mu mel ko lépp lu mu bëggoon a man fekk na mu man ko kon fekk na mu àgg fa fépp man lépp mel népp euh, mat sëkk loolu nag daa feeñ ci biir euh, xasiida gi ci ni muy tàggee ci ni muy sante yàlla ci biir cant gi muy sant yàlla ci biir ñaan loolu feeñ na ci ci biir cant gi muy sant yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci biir tàgg yi itam feeñ na ci bokk na ci yàlla béyanam niroowutoo nag nit ñi lenn lu nitu kese daa def daawu ko def daawul kaf daawul ree daawul jooy daawul fo daawuñ ko yóbbu fu ñuy caaxaane dafa dox doxinu ku mat sëkk fii wax na ne loolu mu mel noonu meloon ci ci njaalbeenam yàlla nga ko ko defale ci daraja yonent bi sas bi nga xam ne moom la yàlla namoon bu dundee doon ab liggéeykatam ñu waajal ko nag faral ko yonent bi nga xamooy mooy maaxi yonent bii maaxi faral ko li gone li melokaani gone faral ko itam lépp loo xam ne jëfi gone la loolu junj na ko ci muy lu weesu ci dundam junj na ci ne moom jëmm la joo xam ne dafa niroog malaaka yi ci sell akuk laab bali doomu aadama yi aajowoo ci seenu dund bu ñu lekkee ak a naan moom ajowul loolu euh, yaaman kasaani yaaman saqaani yaaman xamaani anil xalaa'i yow sunu boroom yaama waddu yaama nàndal bu kenn jàpp ko zahir bu kenn jàpp naanuk zahir nañ jàpp koddaay yi gëneel nañ jàpp naa nandaluk leer ak baatin yu ñu mënta wax mu ne ko nag yaa man xamaani yaa ma aar ba yittewowuma li doomu aadama yi lekk kanaan di yittewoo loolu wax na ko ci jiñu na ko ci jiñu na ko ci biir mi ngi ciy junju xew-xew boo xam ne amoon na mooy jamono yoo xam daa xëyoon ba mu nekkee ci géej gi xëy bis war a jubbu ci liggéeyam yëg tawat ak métti wu tara tar wu tax mënta jublu ci ab liggéeyam am yéefar bu ne ca ga di kilifa tubaab di njiitu tubaab yi fa nekkoon di xal-xalee ka ree ka caaxaan mu ne ko yow yàlla xam nga li ne ci sama yaram bi ak sama jëmm ji ak gàllankoor bi ma am ci liggéeyal sama sang bi kon lii ne ci sama jëmm ji génn ko ci yóbbu ko ca saay-saay bee nga xam ne nekkul ci dara bam daanee la wax ja rek tubaab ba tàmbali yuuxu di caddi caddi loolu amoon ci géej gi waxtaane waat na ko ci biir xasida gi xayral bara yaa laka xawaariq min zil xalaaiq laysat li saabiq wala li jaay min han siraafu cheyin yuaafu amman yaxaafu baadal tijaay xayral baraaya zuttal balaaya li zil xataaya rumtana jaay kon loolu lu la ci ak dund mu nettali ko ci biir xasina gi di ka xarbaax ci xarbaax yonent bi sallallahu alayhi mu ko defal bokk na ci lu mu junju mu bokk ci la xewoon ci daarul mannaan ba muy waaj dem mu gànnaar ci fitna ja amoon ak tiitaange ja ak armée ya ñu dajale woon di waaja taal fitna te yàlla na saxal loolu lépp ci dara yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xamal yaala kafal qitaala mahal majaala bila rifaay axfa shuruura abdal xuyuura qaada suruura li si rajaay bokk na ci tawat ju metti ja ko daloon ca gànnaar ba metti woon lool lool lool ba Cheikh Mouhamadou Bachir di wax ne yeggoon na mag yi yeggoon nañ ci bëggoon bu ñuy julleeti bañ a noddu ndax yërëm ko ndax saa su déggee nodd day jóg te boo àgg na ci mettit ak coono foo xam ne ñëwent nañ ko ci mu yàgg lool ba ñoom sax ñu amoon kenn ci tayu kuñ santoon mu defu xas di ñaanal sëriñ bi jox ko Cheikh Mouhamadou Bachir ba mu ko wonee sëñ bi mu ne ko ana ko def li mu wax ko mu ne ko nañ ko tuub nañ mu bàyyi sa boroom wéra di googee mel na ni moom lay junj ci shafat saqima nafal alima qaadal xadima ilan najaay kon wax na ci lu baree bari ci lu weesu ci ak dundam ci loo xam ne lu mu jëflante ak ci ay xarbaax baax na ci yu war a xew te xewagut ca jamono yi muy bind xasida gi muy wax lu dikkagul bi ixbaar bil muxayabaat bokk na ca xamle na ne junj na ne foofu mu nekk ca ceyeen ak fa nekkoon ca gànnaar ak barab yi daan nekk yépp ñu ko fay toxalaka toxalaat bis dana ñëw mu ne ci biiri dëkkam ci biiri ñoñam ay këram di dund te dootul dootul gentati laka sukuri inda duyóori yaasal xusuuri bila jalaay kon ak ñibbiseem dëkk Tuubaa mook njabootam ak dëkkam yi ak dëkki seexam yi ñëpp muy dëkk yuy sax di yokk ba faw te dootu gentati junj na ko ci biir xasida gi junj na ci ne moom mbooloo mi mu nekkal nekk ca Ceyeen ñu ber leen foofee di leen tumurankeel dana ñibbisi moom mbooloo mépp ci jàmm ak salaam nekk ci ay xéewal laka rujuuci maa jumuuci bi xayri juuci wala xataai loolu maanaam saayir donte am na mën naa meneen maanaam baatin mooy sàmm gi ko suñ boroom loo mbooloo mi aji ci moom dana leen jofal ca kanam yonent bi jëwriñam ndax wax ji moom ci yonent bi jëm làkka ji làkka rujon yi ci yonent bi lay waxal foofu mooy kon dana jofal ak càmmam ñu suur këll te duñu ruur loolu lu xewagul la woon mu junj ko junj na luy xew la ca kanam bokk na ci wane na ne barab yi muy jaar def fa diir bu yàgg ba yàgg mu jóge fa barab ba gent ba mel ni ki musu dëkk daañu dem ba jëmmi jamono barab yooyu yépp ñu sañcaat ko mu dundaat nekkaat ay dëkk nga xam ne ay manazil la ca bam fay jaar waaye dana mujj nekk ay xusuur wala ay dëkkukaay ay saxuwaay maaxir razail mu'ti al-fadaa'il muhyi al-manaazil ba'da al-afaay manaazil moom bu ko sëriñ bi waxee di caa jublu barab bu mu nekkee li nar faa jóge daar bu ko waxee mooy barab bu mu namma sax faw moo tax nga gis ci euh, téere boobu tudd tazawud shubban munawwir sudur la dal manazili wa inda duur xam nga ma ngi ko taalife gànnaar mu wane téere bi day leeral xol yi xol yi ñu ne ci ay barab barab bi nekkeel yi mooy ay manazil ak ñane ci ay dëkk yu ñuy sax mooy adduur kon boo waxee manaasil mooy fu mu jaar war faa jóge bu dee daar mooy fu mu namma sax fii nag mu ne muhyil manaasil baada al afaa'i loolu am na tey jii barab bi mu jaaroon yëpp am fab diir jóge fa mu gent sancaat nañu ko mu dundaat demal ci demal daarul man naan euh, demal euh, barab yi nga xam ne yëpp jaar na fa man sax benn bëccëg la fam wala ay waxtu yooyu yëpp sancaat nañ ko def fay jumaa mbooloo dëkk fa sax fa kon loolu junj na ko ci biir xasida gi muy lu nar a am tey seegutoon kon lii lépp ay maanaa la yoo xam ne xasida gi làmboo na ko kon wax na lu weesu wax lu dikkagul wax loo xam ne lu ñu tollu la bu ñëwee ci tombum ñeenteel bi nag te gën a gaawal waxtaan wi mooy rafetaayu xasida gi rafetaay bi ci waxu arab rek lu ñuy wax alqimatul adabiya xasida gi fi mu yàgg ci rafetaay ak taar ak kawe ci balaaxa gëlëmal na jommal na kuy gëstu ci balaaxa ak ci adab hmm. kon rafetaay bi nag moom rafetaayu xasida gi ci ku xam arab xam wax ju rafet yéem na euh, ku ne feeñ na ci anam yu baree bari yoo xam dañ ci tudd rekk ay tomb bokk na ci rafetaay bi mooy ni mu tëralee xasida gi buy dugg ci buy génn ci bunt di dugg ci bunt doo ko yëg yow miy jànqale doo yëg ne génn nga ci bunt bii dugg ci bii da nga jékki-jékki gis sa bopp ca benn bunt ba ca ca néeg ba ca topp bi mu ñaanee bay dugg ci tagg yi amul fasil bu la koy yëgal habli istiqaama qinil malaama hablil karama bisil liwaay bisil jamali bisil kamaali bisil dawaayi bisil eh, maali bisil dawaayi nga xam ne hablil istiqaama ma ngay ñaan xinil malaama ma ngay ñaan hablil karama ma ngay ñaan waaye bi bisil liwaay dugg na ci aw tagg daal di wéy nag bisil jamaali bisil kamaali di wéy di wéy di wéy ba mu ci jeexal xaaj boobu bay dugg ci xaaj bi bi mu ne xayra waaxi yaa xayra raaxi yaa xayra daaxi lisma salla alayka bi man ladayka musnin alayka inda alayka sallam da mun karam noon bi ka samal bi ka aquudu bi ka man yasuudu zawi istifaay génne ci xaajub tagg yi jëm ci weneen tagg dangaa jékki-jékki gis mu ne yaaman ya suudu zawistraay te yëgoo fu génne ci bunt bu njëkk ba dugg ci buntub ñaareel bi noonu itam la defaat ci bi muy jeexal bu ñaar jëm ci bu ñetteel bi bi mu ne laxul buróoru laxul suróoru talxaawul baanu xitaab yi loolu xitaab yi baana mataa bi gis nga laxoo la mu la wax fee wax fii laxoo mu mel ni jenn wax la te génne na ci wax ji dugg ca jee loolu la ñuy waaye xusnu taxallus xusnu taxallus loolu leer na nañ ci xas dig du rafet rafet ci waxi arab bokk na ci rafetaay bi junju junju yi nga xam ne koy jëfandikoo ci xasida gi nga xam ne yonent bi lay tàgg ci xasida gi yépp ba mu jeex tudd ci aw turam wenn turam ci tur yi siiw yi muhammad wala ahmad wala xaamid wala mahmud wala tur yu ya nga xam ne yëpp moom lañ xamoon tàgg na ko ba mu jeex te tuddul aw turam day junj rek day junj rek euh, ki mel nangam ki mel nangam ki mel nangam ki def nangam ki def nangam kenn def nangam ba xas dëgg jeex tuddul aw benn yoon lu dul ci salaatu ba nekk njëlbéen ga muy salaatul faatix bi ak salaatu ba jiitu turu xasida gi waaye biir way yi moom tudd ci aw turam benn yoon lépp ay junj la gis nga bi mu koy tagg dafa tàmbalee ci bi mu waxee bisi yi ba àggal daf ne zaakal muniiru zaakal bashiiru lahu ushiiru bi sa sanaay nga xam ne kon moom laay junj ci tagg wii kookee kookee la wax kooke mooy Munir kooke mooy Bachir kooke mooy moom lay e, junj ci sama tagg bi kon junj boobu mu def e, xasida gépp ki muy tagg mu di ko junj rek di ko liyaar di ko missaal te ñëpp a xam ki muy wax ndax fesuk mela yi muy wax ci moom loolu lu yéeme la lu rafet la bokk na ci rafetaay bi takraar mooy baamu day baamu ay baamu yu baree baree bari ci anam yu wuute jàng nañ bisi yu bari yi bisil liwaayi bisil jamaali bisil kamaali bisil maali bisil dawaayi bisil ibaada bisil ifaada bi xarqaat lawla bisil nawaali laysil qitaali murdu bisil sahaaba zawil ijaaba jaalil kaawa zawil diyaa bisil xuruubi jaalil kuruubi noorul ari mahri yaay fukki fukki bis te bisi mooy borom nangam borom ju wax rekk manoore la cay teg aku tagg ak kañ ak bakk loolu du di lu rafet defaat na ko ci zaaka zaaka zaaka alwaliyu zaaka najiyu zaaka safiyu zuytu zaaka alxasibu zaaka nasibu zaaka ajibu baadi xabiyaay euh, kon loolu bokk na ci rafetaay mooy baamu yooyu nga xam ne da koy def muy bari lool te bu ñëw gën a neex bokk ko woon loolu bokk na ci rafetaay bi bokk na ci rafetaay bi waxi yéemu yu muy wax ci biir jàpp ci anta habibi yaa man hubibi bila uyubi wala sibaay yoway sama soppe yaay ki nga xam ne yàlla daf ma may yàlla daf malaa may waaye nag ah du ma du ma benn waay rek de gor su sëkk laa kenn jàpp ma jaam bilaay si bàyyi te it ku mat sëkk laa benn manqué nekkul ci sama jëmm bilaa yóobi wala si bàyyi loolu wax ju rëy la wax ju yéeme la wax ne kon ni ma toll jaas gor su mat sëkk dit ku dara manqué wul di ku yàgg fune ne yàlla jëkkati ma nag may may may may la ma loolu wax ju wax ju yéeme la euh, bokk na ci euh, tagg yi nga xam da koy tagg di wax di wax ñaari yëf lum wax wax safaan ba lu wax wax safaan ba wax lam ni loolu tam safaan ak moom te loolu la ñuy wax muqaabala euh, mi ngi wax naan mushkil léegi jannaatu haadi niiraanu aadi fal fadlu baadi maa hil xataaya baadil ataaya haadil bara bi lahul baraa ba àgg ci muskin li saakin bisrun li baakin muskin li xaakin wasin nidaay nga xam ne ak xaysu sakuuri laysu kafuuri naafi nafoor mu déqilaay wax na jannaat mooy àjjana wax niiraan muy sawara ñu di safaan moo wax haadi ku jub moomam ajana haadi mooy ku dëng moomam jëm sawara euh, maa ne kii far ñaawteef yi loolu ab safan la mu ne maahil euh, basil ataya kii feeñal ay may wax ki nga xam ne mooy muskin di saakin kuy jàmbat ki nga xam kuy jàmbat moo lay fajal sa jàmbat ndaa yenam bisrun li kuy jooy itam moo lay bégal kuy wax mu déglu la koy woo mu wuyu la nit dana àgg foo xam ne boo koy nettali dara mën na laa bañ a déglu wala boog boo koy woo du la wuyu mun waaye jikkoom ju rafet tax na moom kuy wax ak moom mu déglu la jox la nopp ba nga àggal lu wax ji gudd gudd ak lu mu ko soof soof waaye ku koy wooy dana la wuyu ak koo mën a doon euh, def xaysu shakur yi xays mooy ab taw wala ab xettali shakur mooy ab santkat lays mooy gaynde kafoor mooy ko weddi ci yu rafet yi nga xam ne feeñ na ci xasida gi bokk na ci li ñu tuddee al lafu wa nasru mooy rangale ay yëf rangale waat yeneen yëf bàyyi la noon nag yow nga war yow ci sa bopp nga war a jëlal sa bopp kur nga jox ko ka ko moom bi ka aquudu bi ka ufiidu yaa man yasuudu zawi istifaay zawi uquuli nahja rasuuli maahil gufuuli maahil xafaay zawi zakaay lisil bahaayi maahil xataayi maahil jafaayi fii def na bi ka aqoodu ci yow laay wammatee bi ka ufiidu ci yow laay xamlee yaa may ya suudu zawist fa yow xam yaay sangub ñi tànn ñëpp léegi wax na fii ak wommat kon am na ñu war wommat am lu am tudd ak xamle am lu ñu war a xamle mu ñëw ci ñaari bay yi ci topp mu ne eh, zawil aquli nahja rasuli ñi am xel laay xamal yoonu yonent bi moom mi far càggante di far ak nëbbu waaye zawi zakaa yi ñi am ñi nga xam borom yu yow lañ laay wommat lisil bahaa yi jëme leen ci borom taar bi nga xam ne comme bi ne bi ko aquudu dalaa bu waxee zawil oqool wax zawil zaka yi xam ne zawil oqool yi ufidu moo moom zawil zaka yi bi ko aquudu moo ko moom in raama ilman aw raama gunman aw raama zulman baaqi liqaay fa zaaka yuhda lahu wa yuhda fa zaaka yuhda wa zaaka yuhda lahu wa yuhda zabi shaqaay mu ne kuy sàkku xam-xam ku ñëw ci moom bëgg xam-xam mbaa ku ñëw ci moom bëgg am koom wala ku ñëw ci moom di ko di ko bëgg bëgg a jalgate ñett ñi ñëpp fa zaaka yuhda wa zaaka yuhda lahu wa yurda mu ne kii danañ ko jox kee danañ ko jox kee danañ ko danañ ko alak dalaa bàyyi ci bayit njëkk yi dalaa bàyyi bayit na bàyyi la rek yow yaay mën nga xam ne kon fa zaaka yuhda moo ko moom awraa maxul man wa zaaka yuhda lahu moo ko moom baaxi liqaayi awraama zulman nga xam ne kon wa yurda za bi shaqaayi moo ko moom kon rafetaayu wax ji ak kii yéeme gi ak euh, fent yim ci def nga xam ne wax yéen yu kenn mës ta loolu boo ko seetee ci xasida gi dafay daf daa fees dell daj kapp maanaam boo ko seet mu mat ci sëkk tomb ñetteel bi te moom lañu tëjee mooy xiima bi mu am ci wàllu ruux maanaam euh, solos xaside gi ci wàllu baatin mu waxee ci wàllu baatin nag duñ ci xuus ndax ñun ci wàllu xam-xam jàng ak xalaat ak gëstu ci la ñuy nab na bi lu génn loolu dugg ci baatin dugg ci xaqiqa foofa jotiwuñu fa waaye liñ ci wax ci gi fànn ci dégg-dégglu lañ koy sukkandikoo te loolu nag dañu ko digaloon sëriñ bi moo waxoon ne fasaariu turran ila taallumi wa jaahidu nufuusa bi tafahumi na gaaw yéen ñëpp dem jàngi te sonal seen bopp ci jéem a dégg jéem a dégg ci jéem a dégg googu lañuy ñuy fóontoo lii ñuy wax ni rekk waaye du xalaat xel junniy xel xalaat xalaatul di wax lu jëm ci baatin baa lu jëm ci wàllu xaqiiqa xet def xëy ñu sax xasida gi ci ci wàllu dégg-dégglu dañ ciy déggee ne dañ ci wàllu baatin jumtuwaay la buy yar bakkan di yëkkati ak ruux di ko yeggal ci boroomam di ko ca di ko ko jegeel day taxaw taxawaayu wird yi borom tarix daan indi di ci tarbiya seeni ñoñ loolu ñu ko fortoo ci li wax ne wajal haadihi am daaxa jaalibatan ila limaani wal islaami wal ixsaani ñaan gim ñaan boromam xasida gi doon loo xam ne day ñoddi ki koy jàng di yokk liimaanam di yokk lislaamam di yokk listaanam ba bu muy àgg ci xaqiqatul imaan muy maarifa ak xaqiqatul islaam muy yaqiin ak xaqiqatul ihsaan muy usul te wird wirdi tarixa yi foofu la jëme nit te mi ngi junj ci biir naan yaa xayra waa'i yaa xayra raa'i yaa xayra daa'i lii si samaa'i waa'i raa'i boo jëlee seen araf yu njëkk yi waaw raa daal boo ko boolee wird lay firi wird baatu wird nga ciy génnee mu wax na yoon bi yow yaay ngën ji aji wattu mooy kuy xam-xam kuy kuy dégg xam-xam di ko joxewaat yaay ngeen ji aji sàmm mooy kuy tarbiya nit di ko wommat yaay ngeen ji kuy woo di ko jëme ci yàlla ngir mu àgg ci mbaa mu jege ko kon fi wane na tagg yonent bi sallallahu alayhi aw yoon la wuy yóbbu nit ca yàlla ni ko jëfandikoo wedd nekke bu ko waxee ci biir xasida gi wax ci njëlbeen tarjumaan ja dañ ciy déggee ne kon xasida gi da yar bakkan di yéege ak ruux di jegeel nit boroomam dañ ciy déggee ne kon dana àggale nit ci maarifa mën naa àggale nit ci maarifa muy xam sunu boroom ndax boo xoolee limub bayiti xasida gi muy téeméer rek juróom-benn fukk juróom-benn mooy tolloog xarafi laa ilaha illa allah laa ilaha illa bi waxoon nañu ne ku ko saxoo di ko zikkar meññet mam cay jële mooy maarifa fa samaru tahlili tawxidun sama lil aarifina qaalahu man alima kon ku ko jàpp te koo ba allah allahu taala boo matali say sart mën na laa yóbbu ci fa gën a kay muy maarifa lijaaba làmboo na ko fi ñu fontoo loolu mooy fi ko fartoo mooy maanaam ku am itte daal jàng ko ngir itte ja ñaan ci yàlla dana faju fi ko fartoo mooy ñaan na yàlla lijaaba ci xasida gi fi ñu waxee ne eh, yaa man ajaaba man istajaaba habli ijaaba fi zanni daay yaasal jalaali yaa mutaal yaa xayra ajib duwaay te jullit simple laa wax de jullit simple jullit kese kese rek bu ñaan yàlla ca nam ko ñaan nam ko war a ñaane yàlla day nangu ñaanam loolu lu garanti la wa qaal rabbukum ud'uni astajib lakum wa iza sa'alaka ibadi anti fa inni qaribun ujibu da'wata da'i iza da'ani yàlla moo ne man ku baax laa ku ma rek ma may la ku ma ñaan ma war a ma may la kon ku toll sëriñ bi ku na xam ne lépp lu mu ñaan benn muy lu ko yàlla may ba noppi mu koy ñaan ngir teggiinu ah mbaa muy lu ko yàlla nara a may te yegseegul mu koy wax ngir teggiinu kon li jaaba jim ci ñaan wóor na ne am na kon xasida la ci wàllu baatu gu làmboo eh, li jaaba xasida la goo xam ku koy jàng da nga texe àdduna ak àlaxira insha allahu taala fi ko forto mooy ci ñaan yi wax wa ila saadati daaimati ak li mu wax ne uh, wahab li man yaqra saadata daarayni ci mujj ga loolu itam lu ñaan la te xam nañ lépp lum mu ñaan suñu borom kon ku takku xas di ko jàng da nga texe àdduna ak alaxira xasida goo xam bu ñu ko jàng yonent bi day bëgg wa farrix biha rasulallahi ak wa farrixu bi haasihi almanzumati lii moom du baatin du xaqiqa waaye ay maanaa la yuñ fore ci ay baat yu mu wax ñu déggee ca maana yii léegi na ña nga xam ne fànnu xaqiqa ak baatin mooy ñanga xam ne yar ruux ak yéege ko mooy seen mooy seenu fànn ña yàlla xamal la nekkul ci téere yi ñooñee ñoom mën nañoo wax lu xóot te wér te te te làqu ci xasida gi lu bokk rek li nga xam dañ koy fontu ak a kon lii daal mën nañ koo yamale foofu ci ay tënk ci lu aju ci xasida gi tëje waxtaan nag ci fàttali suñu bopp ak bokki jullit yépp guddi gu màgg gi nga xam ne mu ngi gis sunu kanam mooy guddi gi ñuy euh, fàttalikoo ak a sant yàlla ak a dund ak màggale yonent bi sal muy guddik mawlid muy loo xam ne sëriñ bi ponkon na ko lool lool lool def na ci jëf ju ci kenn mënta mës jëf yóbbu ko fu kenn mën àggale wal tudxil al musliha fi yadi wa fi daari wa thabbitanhu haadi al wafi